إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال في بالمجد المسلم asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki taalibe yi bokki jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare bu baax euh, di am mbégte nag ci jataay bi nga xamante ni ñu ngi ko séq suñuy kilifa lépp jëm ci waajtaayu bisu xasida bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général di Mouride moom la santaane euh, ci àllarba ji jëkk ci weeru muharam wara doon benn fan wala ñaar di dëppoo 11 ci weeru août atum 2021 muy ndigal loo xamante ni euh, mi ngi ko jox jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëriñ Youssou Diop mu ànd ko sëriñ Amsatu moom sëriñ bu Mbacké mi nga xam ne ni ko sëriñ bu waxee ku ne xam na ni lu waaye di def ci xasida yi moom nga koy dimbalee ni ko mun Mountakha waxee ñoo am mbégte nag euh, ci jataay bi euh, daal sëriñ Moustapha mu sëriñ Mahmadan di ko sant bu baax ci teewaay bi Euh, bokk na ci itam Serigne euh, Ahmadou Mbacké moom Daaru Muxti moom itam teew na ci jataay bi fas yéene ñu waxtaan ci bis bi ak waajtaay bi ak xaside yi ak worma yi nga xamante ni incha allah moom lañ ko war a sedd ci jataay bi ba liñ ci sàkku ci sëriñ bi ñu mën cee teg suñu loxo sëriñ Saliou Mbacké itam moom Cheikh euh, lu Mbacké mu sëriñ Souhaïbou teew na moom itam jataay bi ak sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ñu feggoog itam sëriñ Pape Assane nga xam ne ci biir noso yi comité bi lépp lu aju ci wàllu daayira yi ak kuréelu xaside yi ak jàngkat yi moom moo teewal ku banqaas bi nga xam ne mooy jokkook ñoom ngir ñu mën a xam nan moo war a doon seen taxawaay ci bis bi bu jege incha allah kon ñooñu lañu ñu fas yéene amal jataay bi ngir leeral yi nga xam ne moom lañuy ñu te kenn ku ci nekk war koo jàpp ba bu ñu ñëwee ci bis bi defee ko ni nga xam ne nii ko kilifa yi santaane. kon dañuy euh, doore ci sëñ euh, Moustapha rek di ko ziyaare bu baax di ko nuyu di ko jox kàddu gi euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaat Sëriñ Tuubaa baax a baax moom mi nga xamee ne mooy sunu léppi tey ak ëllëg ñu ñëw fii ci daaray xisbu tarxiya am mbégte lool ci ànd ak jataay bi sëriñ Yuusu ak sëriñ Ahmadu ak sëriñ Saalix lépp nag jëm ci waajtaayu bisu xasida bi nga xamee ne Cheikh Modou Mountakha da ko jox ndigal sëriñ Yuusu Jóob mu ànd ko sëriñ Xamsatu moom sëriñ Sohaybu ñu taxawal liggéey bi ñu ne ci waajtaayu bis bi am nag ay ndigal ak i soññee ak i leeral yoo xam ne nii euh, war nañ ko amal tey ci jataay bi damay junj rekk tomb yi bàyyi sëñ Yuusu mu euh, jàll ci xóotal ci di ñaanal Cheikh Modou taxaar mi nga xamee ne moo joxe ndigal ci biir si woote ko yàlla yàggal ko yi te wéral ko ndax ak yàggam bi njëriñ la ci yoon wi njëriñ la ci réew mi di njëriñ ci àdduna bi ndax kilifa la bu mat li mu doon waxuma la bokk gi mbokk ci sëriñ bi waaye melokaanam rekk mën naa xettali àdduna mm-hmm. bu ci boolee nag doon lim doon ci sëriñ bi loola moom leneen la ñu xam ne bis bi it bis la boo xam ne nii yëg-yëg la ci moom te it bisu delluwaat ci sëriñ bi la te buñ nee dellu ci sëriñ bi nag mooy dellu ci suñu borom ndax sëriñ bi ni ko Seex Amadu Muntaxa waxe biñ ko gisee ak biñ ko ba ko noppee gis ci borom rek la woon mosu koo génn benn yoon kon dellu ci sëriñ bi mooy dellu ci sunu borom tabaaraka wa tey nag dellu ci sëriñ bi eh, eh, ni mu ko waxee xasida yi moo ci gën a gaaw kon moo tax mu woote bis boo xam ne nii bisu xasida la la lay doon képp ku fi ñëw it na xam ne sëriñ bi jàng xasida la woote wootewul leneen képp koo xam ne ak si nga daal ak foo mën a nekk ak noo mën a ñëwee na nga xam ne ndigal li mooy nga toog ci benn barab eh, jàng xasida ga nga mën teewlu delloo sa bopp ci sunu borom tabaraka wa taala te jaare ko ci sëriñ bi te sellal ko ci anam yëpp nag moo xam kii durus la moo xam ci mën a jàng njàngam yëkkati la moo xam ñi koy kuréel la da ci rek mooy mbooloo fu ñu daje faw mu laaj ñoo xam ne nii ñoo dañuy toppatoo je yee ñu mënta ñàkk ñoo ñooñee it lañuy def nañ ko sellal te defe ko positif te xamee ne ku ko seetlal defe ko pasef amee nga àtteeb ko toog di jàng rek ndax ak jaamu yàlla lu mu réere yi ka koy def ak ka tax mu mën ko def ñoo ca bokk ab àtte kon euh, sëñ Yuusu dana gën a leeral bu baax a baax a baax ci sëriñ bi ni ko bëggee ak ñi mu fi gën a soxla ak nañ ko war a defee kon daal yàlla nañ ci yegg ak jàmm te am euh, te te defe ko ni ko sëriñ bi bëggee ba làq ci ngërëmam te xam nañ ne bu ko sëriñ bi amee ni mu ko bëggee dana jagal àdduna ak ni ko war a lépp te it mbooleem li ñuy ragal tàmbale ko ci tawal ji ak nawet bi nga xamee ni ñëpp ci am ak jaaxle jot naa ne buñ génnee ci bis bi lépp mën naa saafara ci daraje Sëriñ Tuubaa kon sëñ Lamine ñu yemale foofu kàddu yi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. ok euh, jërëjëf euh, muy kàddu yi leeral yu am solo ñuy sant bu baax sëñ Moustapha mu sëriñ euh, Mahmoudane mu sëriñ Massamba ci ubbi gi ak delloosiwaat bis bi ci li nga xamante ni moo tax sëriñ bi woote ko sëñ Youssou mu mel nii bi ndigal li jibee te sëriñ bi booleel ak sëñ Hamzatu moom sëriñ Chouaïbou boobaak léegi ay takk mi ngi am ay tënk mi ngi am. Euh, banqaas yi nga xam ne ñoom lañu ñu nosee liggéey bi kenn ku ci nekk ñi ngi dox mu mel ni nag euh, du ñàkk ay kàddu yu jëm ci mbooloo mi nga xamante ni euh, ñooy mbooloom jànkatu xaside yi ak ñi nga xamante ni dañuy liggéey si ci bis bi ni ñuy taamoo ñu ñëwee ak seen diggante fii ba ba ñu yegg ci ci bis bi. waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. maa ngi ziare sama sang yu tedd yi nga xam ne ñoom laa bokkal jataay bi te ndigal boole ñu muy lu rëy ci am na àndandoo ñoom liggéey bi euh, ñoom ci sant suñu borom bu wér wér di ñaan ànd gi sax ndax lépp liggéeyal Serigne Touba rek la di euh, jiital ci suñuy kàddu sant Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu te wér ndax sóob nañu ci yoon woo xamante ne mooy dëggal te rafetal te yéwénal li tax ñu jox suñu bopp Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa dañoo sóobu ci ci moom jox ko suñu bopp jébbal ko suñu bopp àdduna ak àllaaxira waaye dañuy soxlawoo cheikh yi mursid boo xamante ne daf ñuy taxawu ba jaayante boobu lan wax nu jëf ko te muy dëgg ci noonu ndax euh, ak ak ak jaayante boo ko boo ko waxee dañ koy dégg waaye boo ko jëfee ñu gis ko yal na suñu borom dimbali ba ba ñu def ni saxaaba yi defoon wala si jaa bi sidqi wa saddaqa bi di ci eh, teg njabootu Sëñ Tuubaa gépp di leen sant ndax Cheikh mun Muntaxa bi mu santee liggéey bi ñoom ñoo ñu dimbali ñoo ñu yaatal ñoo ñu jàppale ba mu yomb ndax liggéey bi ci jumaa ji lay tàmbale kon waa Muxaddamatul Xidma eh, ku ne xam na ne ci njiital Sëñ Afe boobu ak léegi noppaluwuñu noo ngi ci Euh, mboolem kër yi nga xam ne mooy njabootug sëñ Tuubaa gi wër euh, jumaa ji kenn ku ci ne wane nga ne yow surgo nga ci biir kër gi Cheikh Mamadou Muntaxa nga moomale kër gi euh, jekk yit ngir jàpp ci ngir lépp yéwén loolu ñu amuñu seen pay xanaa ñaanal leen rek seen maam ju tedd ci la mu bëgg ci ñoom sàkku ko ci ñoom suñu borom kattanal leen ba ñu def ci lañu mën lépp te suñu borom nangul leen ko di santit kim ñu booleel ndax Euh, ñun njabootu sëñ Tuubaa gépp suñu kilifa lañu waaye waar wii nga xam ne ci la ci la sëriñ bi euh, dogu euh, bëgg ci liggéey muy bésub xasida waar woowu dafa am koo xam ne ñëpp nangul nañ ko ne lu waaye di def ci xasida yi moom lañ koy dimbale te sëriñ bi wax na ko muy sëñ Hamsatu Mbàkke moom sëñ Suwayb waaye ku ne xam na ne bu ñu soxla woon bis boo xam ne dañ ne kuy tailleur ci dongo yi na fi ñëw kon tailleur ñoom xam nañ seen bopp dañuy ñëw bu ñu nee dañoo soxla woon ay maçon euh, ndax sëñ bi am na yitte maçon yi dañuy ñëw daje tey nag liggéey bi sëriñ bi santaane ëllu xasida la ëllu xasida nag suñ koy wax euh, dafay ay mbooloo yu nosu ñii di ay kuréeli xasida yoo xam ne dañ koy jàng ñàngum yëkkati ñii di ñoo xam ne dañ koy durus ñu ci bëri nag dañoo nosu ci ginnaaw sëñ Hamsatu Mbakke ci biir réew mi ak bitim réew waaye am na ci ñeneen ñoo xam ne itam ñu ngi liggéey ci xasida yi di ko jàng di ko sellal sëriñ bi daf ñoo wax nañu kuréelu xasida boo xam ne seenum njàngu wér na sell na fu mën na ne ci réew mi na ngeen ko woo mu ñëw loolu nag moom mooy bis bi su ko defee loolu keneen koo xam ne yàlla dogal na yaa ngi ci yeneen liggéey lay tax lu ñu fi def nga bokk ko ñiy jàng xasida yi mooy dañ leen di yaatal ñoom ñi nga xam ne liggéey boobu dañ ko defoon seenub liggéey lu jiitu tey ba sëriñ bi cëral leen cër bii su ñu toogee fa ñu ne wala dundal ko fa ñu ne te xam ne ñoom la ñu gën a woo ci jumaa ji loolu ba tey da koy ànd ak ñoom yéen a jooju dañ la koy fay luñ ci amit ñu ànd ko waaye boo jàppee ne taalib yi yëpp la woo ñu ñëw te xëñ na yow teewlu di jàng euh, xasida euh, suba ba tàkkusaan doo ko mën mënee ni ñoom xëj na yow yaa ngi nekk ci yeneen yitte wala yow du la tee euh, nga nga nga nga am lu lay bi loolu day daal di doon gàllankoor boo xam ne dala taxoon a jóg day mel ni am na lu la ci gaar lu baax tax laa jóg nag ngay seetaan ba ay gàllankoor di ci am loolu moom la sëriñ bi bañal ñëpp moo tax mu ne bés bi nañ ko bàyyee te yaatal ci ñi nga xam ne njàngum xasida di ko yëkkati wala njàngum xasida di ko durus ñooñu ñoo ko moom loolu kon lu leer la waaye taalib yëpp ñu ngi ci biir waxuma la taalibe mi ngi ci biir waaye jullit yëpp ñu ngi ci biir ndax sëñ Tuubaa dafa fàttewul kenn ci ummatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax su ma jëlee benn bayit rek bi mu ne ijhal tawaali fiya bil muxtaari junnata kulli xaari in annaari xam nga moom loolu doy na waxuma la mokkal xasida benn béyit bu nit mokk bu nit yër jàng ko ci xasida sëñ tubaa sunu borom du la dugal sawara loolu moom sëñ tubaa li mu am ci sunu borom du lu doomu aadama mën a xam du lu doomu aadama mën a lim lenn rek laa ciy wax mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mu baax ma yàlla ñu ko yàlla fayal mës na wax ne sëñ tubaa day dongo yëpp muy taalib yëpp liñ ñu yaakaar ci moom bis penc bu leen ko defalee ba noppi mutul asakay la ko suñu borom defal nga xamne kenn ku ci ne lu sa yitte rëy rëy rëy donte sa mam ji jek ba ci sa sët bi mujj nga bëgg dimbali xajna ji le seigne touba liggey nañ gor gor lu rek ba bok ci ñooñ seigne touba moy nango nango euh, sax ci ndigal ta bañ ci rax dara motax tay nak dama and ak sama kilifa yi ngir fatali ndigalal Cheikh Mamadou muntaha ndigal li waxna li ci jek ci jumaaji la tambalé ak kër yi nga xam ñoo wër jumaaji fu ci ne njàngum xasida na am bu feesee it na ko jànkatu xasida yi fees waaye ñeneen buñ leen xajal buñ leen xatal ginnaaw loolu nañu xam ne yeneen pénc yi nekk ci Touba mboolem pénc yi sëriñ bi nee na nañu yam foofu te dundal ko foofu ci njiital kilifa ya ne nga xam ne la ñuy def it mooy li ñuy def ci jumaa ji waaye ñoom bu ñu ay daayira bu ñu jógee fii ci biir Touba ñëw yaakaar ne dañoo war a ñëw xat-xatloo ci biir jumaa ji loolu it ñu ngi koy soññe ñu xamee ko noonu xam ne euh, lu ci ne nosu na si satu ñi nga xam ne ñoo ñoom la tànn taamu leen wax leen nos ngir ñu dikk ci biir jumaa ji ànd liggéey bi ñooñ dañ xam seen bopp dinañ ñëw ñu ànd ko ñoom kuréelu xasida Hizbut Tarqiyyah it kuréel bu mag bi nga xam ne moom dañuy ànd ak moom Euh, di jàng ci wetu sëñ Hamsatu fa ñuy durusee loolu itam nos nañ ko ñoom sëñ Pape Assane ñi ñu ngi koy lijjanti dinañ ko def ci penku jumaa ji lay doon waaye du njàng moo xam ne njàng mu ñuy woo nit ñi ñu ñëw seetaan wala njang moo xam ne dañuy dañ naan daaj yu bees yi moom ban moo génn ñuy fett soo ko déedéet lépp bañ nañ ko ba dañuy tànn daaj yoo xam ne yëpp tamkiin akuk dal ak li nga xam ne mooy labaaxatu loolu la ñuy soxlawoo ci jataay bi ñëpp ànd akuk dal yeneen barab yi kër sëñ Tuubaa yi nekk wër jumaa ji yëpp fu ci ne dina am kuréelu xasida dina jàng foofu kon ko fa ne foo foo ci ne rek doo wéet incha allah leneen liñ ci bëggoon it leeral mooy euh, li jëm ci bis bi ci wàllu teranga yi sëñ Mamadou Muntaxa moo ci jëkkee jox nañu loo xamante ne rek yéwénaloon na bis bi sëñ Xamsatu it jëf na ci loo xamante ne yaatu na yaatu goo xam ne nun ndongo yi tamit bi ñu defee sunu yëfi dongo ba dolli ko ci yaakaar naa ne dina mën lu bari waaye teewut lu waay di def ci sëñ Tuubaa doo ko xatal doo ko xatal moo tax dongo yaa ngi feeñal seen yéene fu ne ngir jëf lu jëm ci bis bi lenn rek laa bëgg moom mu leen ñëpp mu yónniwuñu kenn ngir mu laaj kenn dara lu waay di def na doon loo coobare woo loo xool ci sa yéeney bopp nga di ko ca def loolu daal moom laa bëggoon ñox ko bu dee fii ci daara Hizbut Tarqiyyah wax leen lu fi waay di joxe noo koy defee waaye nañ xam ne lépp lu ñu teg ci loxol sëñ Hamsatu it man de jàpp naa ne agsi na ci daara Hizbut Tarqiyyah ndax moom li mu fi indi mu ñëw fii rek loolu daanaka yëwee na loon na bis bi kon nu ngi koy sant di ko gërëm euh, leneen nit moom mooy wax nañ ko ama ànd kooku sëñ Hamsatu ànd kooku sëñ Moustapha mi mooy nañu sàmmonteeg li nga xam ne mooy euh, mesure barrière yi ñuy wax moo xam masque la moo xam gel moo xam tamit toogin beeg lépp loo xam ne jëm na ci ay raxasoog loolu nañ ko fonk waaye ku nekk xam na ne lii gàllankoor ñu naan tawat ji ma nga yaatu ci leneen lay juddoo waaye fu ñu dajee di jàng xasida Sëñ Tuubaa foofu kaaraangee fay am yokkutee fay am ndimbalal yàllaa fay am ndax li li wërsëg wi ñuy dajale di ko jéem a fanqee tawat ji xeeti ndimbal yi réew yi di def lépp di ko def ngir aar nit ñi ci tawat ji xasida sëñ Tuubaa ci gën a gaaw loolu nag kon sëriñ bi moom li mu indi solution la indi dafa indi loo xam ne day dimbali nit ñi waaye gàllankoorul kenn yàqalul kenn dara loolu kon ne ko ñëpp xam ñu xam ne moom euh, lu ko mat la ndax tey ji xasaayit sëñ Tuubaa euh, du lu kenn mën a xam njëriñ yi waaye naa ci jukki ñaari way rek yoo xam ne kilifa yi buñ ci dikkee dinañ ko gën a leeral nee na naabat kitaabat yi la dal laahil jamil anil ibadaati wa anhu laa tamil loo xamante ne la rëccoon ci jaamu yàlla lépp xasida yi dinañ ci defal ba defal ñu ci loo xam ne lott nañ ci nan sant te fonk ko buñ koy def naabat kitaabati anil nawaafili wala ora bi rida ani rida bi xaafili loolu itam muy loo xam ne dama bëggoon rek fàttali ko ngir ñu xam ne njëriñ yi doonul lu ñu mën a lim barab bu mel noonu nag dañu waran and ak yar and ak teggin and ak dal man de japp naane bir biir ji ak liko wër luddul ñi jang ak xassidi ñi mu jolli weñ bu biwe war nañ ko mëna yor sa téléphone naan damay photo bokku ci ndax ku fa ñew ngir jang lool do ko fa def ñi yor presse nosu nañu no xamantene da naka caméra yi ñu tek ñuy jël la wara jël waxuma la fi sax nañ ko jotali aduna jëm waaye ñëw yow ngir sa yittey bopp ne dangay foto photo wala da ngay jël loolu day mujj doon gàllankoor loolu kon nañ nañ ko bàyyi xel xam ne bis la boo xamante ne euh, souvenir ya nga fay jëlee barke ba nga fay jëlee moo ko ëpp doole te barke bi ci ndigal euh, la nekk mu nekkul ci li nga xalaatal sa bopp la ca topp rek nag moom ma koy tëjee euh, mooy di santaat tey ñaan daayira yi ñëw ñu ne leen yaatalal nañ leen ci kër njabootu sëñ Tuubaa yi ko wër nañu yem fa ñu war a yem ndax njabootu sëñ Tuubaa yi joxe nañ seen lépp waaye nag nañu xam ne warmaal leen bokk na ci jaam ci ci ci jaamu yàlla bokk na ci li tax sunu taalibe mën a mën a mat mën a rafet ñu ñu jox la ëtt yi nga bëgg jàll ànd ak ñoo xam ne mënoo leen lijjanti fu ne ñu dugg fa ba mën faa sikkal ndax yow mën ngaa ànd ak mbooloo te mënoo xam ñëpp na la ñuy doxal loolu it nañ ko moytu. nañu yam fañu wara yam ku ne boy ñew na nga xamne wajal waajaluñu ay dal dañu wajal ay barabu jàngukaay khassida kon tewlu tok ak barab yu ñuy wajé loolu mën na ne boku ko yittewoo nga xamne ne barab yu amna fa waaye bu loolu jàllee ñew togaat jang rek ba lu la fa fekk ci taranga nga xamne loolu nga sante ko yalla suñu borom li dal la rek na ko ci dolli di delu di santat euh, Cheikh Mamadou muntaha di wax ne li def ni euh bu incha allah njëriñal tey ak njëriñal ëllëg lay doon waaw ndax li ñuy wut euh, bëgg ko sóobu sóob ci njaboot gi sóob ci ñëpp mu ëpp doole sax kaaraange li ñuy wax ci tawat yi waaye dañoo bàyyee suñu bopp suñu borom te suñu borom loo gis mu def ko rek am na lu tax mu def ko kon nan góor góorlu xam ne bu ñu saxee ci sëriñ bi sëñ bi fàggu na lépp jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok jërëjëf euh, sëñ Youssou mu indi euh, leeral yu am solo. xam naa dinañ ci dellu soir sax euh, ci mujj gi euh, ndax tudd na xéwal yi tudd teraange yi tudd bernde yi nga xamante ni sëriñ bi moom moo ci tàmbalil boppam di ci jëf ci bis bi donc yëpp itam euh, wuyu ko fekk ko ci muy loo xamante ni lu am solo la sëñ Ahmadou dégg nañ sëñ Youssou ak sëñ Moustapha kenn ku ne ci ñoom baatu teewlu tudd nga ko ay yoon baatu fonkel tudd nga ko ay yoon mu mel ni kon lii ñu sëñ bi woo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 di am mbégte bu baax itam ci eh, bokk ci jataay bi di ci sant bu baax itam sëriñ Hamsatu mi nga xam ne moo na ci boole tey ñaan yàlla nangul ko liggéey bi eh, liggéey bii ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di liggéeyloo itam mu am ci ndam lu kawe njottul eh, sëriñ bi ko doon liggéeyloo ci daraje sëriñ bi li nu sëriñ bi woo nag ñaari tawféex da ca daje te mooy danoo woo ci jàng xasida te jàng xasida eh, tawféex la ju kawe ci ab murit waaye mu jox ñu ci ndigal yitam gis naa ne loolu it lu ci mat bàyyi xel la ndigalul Sëñ Muntaxa li mu ci joxe ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Lamine daga na wax na ni sëriñ bu mag bi ku mës a ñëw ci moom boo yene boo yoree weneen wird dala ci joxaat ndigal ne la ñu defal la ci ba nga man cee jariñu kon ndigal lu bayiko ko ci serigne bi ci tuddu yalla gum meuna don rek da bukk tak len ci disay ba ak nangu ga ci ne ak jeexit yi ya nga xane mom da lambo kon cheikh mohammed mustafa mi nga xane cheikh mohamadul muntaqa yalla nako fi yalla yagal mi nga xamne mo fi tok toga yu serigne bi eh, te di jëm jo xamni jamono ji mom rek da nga nan mom rek mo fi meuna ne serigne <laughs> touba jamono ju ku ko teewal rek da nga jàpp ne kii rek moo fi waroon teew ci jamono ji isrif bi jaahil muntaqa lil umma igaasatan takfil adaa wal gumma loolu muntaqa joojee sëñ bi wax mu nekk xettal ci mboolem xeet wépp taxawaay bii mu taxaw ci jamono ji nga xam ne jamono yu tiis la ci àdduna sépp ak ci mbindeef yëpp jëmmal na waxi sëñ Tuubaa jooje wasrif bi jaahil muntaqa lil umma igaasatan takfil adaa wal laysa li ummati nabi siwaaka yaa jaacilan hawaaya fi hawaaka lim nu woo nag mooy jàng xasida jàng xasida nag ku ne xam ne xasida tudd yàlla la kitaabati dikkurun wa shukurun wa sadaat la sëñ bi wax man tudd yàlla ndax xasida li ci ne mooy e, julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak tag suñu borom tabaaraku taala ak ñaan ak istighfar muy jéggulu suñu borom tabaaraku taala ak sant yalla nak ci may yi nga xane mom la ko sunu borom defal mu diko ci sant eh, loolu yi bu andé moy qasida loolu nak tudd yalla la rawatina nak mu jaar ci xolub serigne touba bi nga xamné waj'al fuyuda kalkali munira qulub hizbika nga xamné serigne touba xolum bobé la ci jaar da wuté ak lu jaar fenen Eh, ku ne xam na ne tudd yàlla yi li koy wutale mooy jëmm yi mu jaar Sëñ Tuubaa nag nga xam ne jëmmam eh, di xol boo xam ne dafa jokkoo di lenn ak xolub rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala alladi bayni wa baynahu tasal bilan fisaalin yaa najiya man wasal ila ilahillahi qad wasaltu wa an rasulillahi man fasaltu li bàyyi ko ci moom mooy li bàyyi ko ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon tudd yàlla gu noonu te sëñ bi yàgg nañoo digal man li seigne Muntaxa joxe muy ndigal li muy dajje ci beurep tuddu fa yàlla lolou seigne bi yag nañu ko jox ndigal lolou seigne bi wax nañu ne euh wa lazim adh-dhikra bila israr wax na feneen itam ne dumu ala dhikri rabbin la sharika lahu bima bihi adhaba al ahzan izhaba wax na ne na ngeen sax ci tuddu yàlla subhanahu wa taala ndax moy yóbbu njàqare yi moko fi jele wax na nu itam ne saw làmmiñ yow murit bi nga fexe ba na na waxtu wu ci di tudd yàlla wattin lisaanaka ala al adkaari wa xaytuma kullimta bil fuduli fa min li dicri rabbika al jalili te loolu waxtu yëpp la wax na nga def guddi ak bëccëg fadum ala sahari fil adkaari guddi yi na nga koy dundal ci ci tudd yàlla kun maa la ilaha illa allahu salaatu ala nabi loolu la ci wax له وللرسل سلام الكريم روم تحوي خيرا اجره ليس يريم دا لا دا لا واخ صاح موم سيرن بي نه سين نيام وي غنا نيه مردي خير الطعام للمريد سالك دوام ذكر ذي الجلال المالك ناخ دراخ نه جيم جي ليكوي دوندال موي ليك يي واي روح مريد بي لاكوي دوندال موي تود وعلم بان الذكر قوت القلب moo tax mu daa wax ne amma dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru waaw te yàlla jox ko nag ci tudd yàlla loo xam ni mosu ko cee jox mbindeef ya li mu wax ne suñu borom defal na ko ci tudd yàlla ndax moom da wax ne moom tudd yàlla mooy ki koy sàmm bu doon magasin bu ñu tëj kayor ceebi ja mooy sëñ Tuubaa mooy li wax ne laa yaxtafi ala al baraaya kaw ni xaasina dikrillahi nuuril kaw ni waaw moo tax dara wax sax ne dinaa ci tabax tabax boo xam ni maanaam binaa ak zikri ni mu ko waxee ci nooru daari ni waaw charatu baaniyan binaa ak zikri maanaam tabaxub tudd yàlla boo xam ni njëndi lay doon loo xam ne dara du ko féete kaw loolee nag charatu baaniyan binaa ak zikri wajaan makuusi laka xayra shukri wax na ne sax jëmmi tudd yàlla ci moom moom moo koy sàmm ci kaw suuf moom sëñ Tuubaa wabni liyal xisna alxasina xaafidan ak zikra bii مفتكرا ولافذا لقاد رب الله ذكرا لم يرى موتاخ مو ام سي تود يالا لو خامني مسيفو دا غيس كوكو تي ام تود يالا نك يو بري لا واي نك خاساي دي سيني توبا يني كونا خامنا ني دا فا لامبو يينيني مبير يو بري بري بري تي موي دا فا بايكو جي بير القران الكريم واخنا ني اتت في امتداح المصطفى اي ربه به الله اسرى للعلا وهو يعرج خليق بأن يثنى عليه بذكره فأمدحه من أي مولاه تخرج أنا تي القرآن لكو جنة آه، متخ موتك ما أنا مغتي تود يلا ديكو جان دي ووتك غدي كو دفتش لنن تيتم دري تشاخانك نين أكوب سافان دكو جيغوت مومينوم سين توامي لم ينحو خطي فضول أو كذب ولكتابة الرداء ينجذب maanaam li wax ne moom xam nga waykat yu njëkk yi sax bu ñu masaa di way dañ ciy boole li ñuy wax xësal yooyu yëpp nag dafa wax ne man sellal naa tagg yu may tagg rasulullah ak lii may eh, déy suñu borom sellal naa ko wëlis di ci dugal li ñuy wax xësal xëyyëbtu anzamiya ani taxazuli bi dimanin li matxi xayri mursali eh, ba tey li ci gën a yéeme mooy Sëñ waa wax na ne mbooleem xasidaam yi lu bàyyi la ca àllawxul mahfuus tudd yàlla goo xam ni gu kawe la gu rëy gu diis goo xam ni ca lawxul mahfuz la bàyyi ko li mu wax ne kitaabati min lawxi rabbi tunqalu laa yamtari fiha nabihun yanqilu lawxul mahfuz sëñ bi da caa am cër boo xam ni da wax ne aktubu naqilan min allawxi alxafiz maanaaya daa njëkk a wax ne baat bi rek moo bàyyi ko ci lawxul mahfuz léeg-léeg ba mu yàgg mu ne maanaa mi ak baat bi yëpp ci lawxul mahfuz lay bàyyi ko waaw te loolu àgg na ci wax ne maanaam mi ngi muslu ci yàlla ci sikk sàkk ci dara àgg na sax ci wax ne xalima gi may bind xalima gi suñu borom la tabaraka wa taala yanqaadu lil ilmu min al lawxi al qalam qalamuhu al qalam qalamuhu wa ma naxat anhu zulam maanaam jëmmi mbind mi day mbindum leer moo xam ne leer gu yàlla goo xam ni leer goo xam ni goo xam ni suñu borom rek moo xam dayoo ba ñu wax ne wajaal tawaalif yi anwaaran te nuur saatiatan bi xurmati nuuril munir kon xam na ne du du du du nu la neexe rek doxe doxe ci am na noo xam ne boo ko ci doxee mën ngaa jëriñu waaye am na noo xam ne boo ko ci doxee dégg nga mën ngaa mën nga man nga man nga mën nga yàqule la jiitu mooy sëriñ bi wax na teggin yi nga xam ne moom la ñuy jànge moom la ñuy tudde yàlla loolu sëriñ bi wax nañu ko teggin yooyee nag képp ku jàng de moom nga moom ci war a àndale rawatina bis bi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi mën taxa woo jëmmi ñëw ci bis bi rek dafa am ay teggin teggin ya ca jiitu mooy nga nga nga am yéene ju rafet ndax yéene ci lak pay ne innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma nawa boo jëlee sa paas rek ñëw nekk fii wër ba kii te yéene woo dara fi ne doo am dara fi ne yéene mooy ruuxuk jëf loolu la sëñ Tuubaa daa kon la jiitu mooy ki nga xam ne am na yéene ñëw fii def ndigalul sëriñ bi li jiitu mooy mu yéene eh, def ndigalul sëriñ bi ci jàng xasida te yàlla rek a tax jërul mu ci fas leneen nag na ko def ngir jëmmi sëñ Tuubaa Eh, maanaam lu ñu ci sëñ bi fasloo rek xaw ma lu ci sëñ bi fasloo waaye lu ñu ci fasloo rek nu faslu ci loolee mu soobee yàlla bu loolu weesoo bu ñëwee ci dëkk bi itam yitteem di jàng xasida rek ndax loolu rek lanu fi sëñ bi def defloo ci bis boobu jërul siyaare ci bërëb jërul dugg fenn jërul xool fenn duggal toogal fa nga njëkk a jot rek nga yor sa xasida xasida ku jeex nga jàng keneen jëmmi eh, jàng nag eh, xasida am nay teggin تما لسنج وقت مسالك وقت وعد من آداب ذكر الذاكر جلوس عبد في مكان تاهري مستقبل القبلة ذا تربع أو متوركا كمن صلى فعي طيب رائحة إذ لا تخلو مجالس الذكر إذا ما تجلو عن الملائكة باستماعي موي برب بيغي توك نلاب يو سبب نغا لاب توك تي برب بلاب تي توك جبلو بانكو تبانكو بولك دارا بانكو دوك ndax sëñ bi wërdam wi wirdul maaxus rek daa wax ne di ko def di boole ak yenen loolu suu adab la allah qasida itam fofu lay dugg di jang qasida di ko boole ak lenen ak di ko ak di ci duggal yeneen i baat lolu danañ ci netli netli yo xamni ne Cheikh dañ ko netli ci Masamba eh, jataay yoy nga xamni ne bi da ko daa jàngalu xasida na wax ne sama qasida yi buñ koy jang bu len ci boole lu ci bokul ku ko ci bayiwul de ku ci bayiwul di ci berxali baat malaika dañ la jël berxal ci sawara loolu nag wax ju rëy rëy la kon juruta boole dara lu may li nga mën a jàng te itam nga boole kook sol yére yu set yu laab ànd xet gu neex ndax sëñ bi di wax ne bërëb yu mel noonu malayka yi dañ fay ne te malayka yi xet gu naqari da leen di xatal te ngir ñu gën laa mën a jege faw nga ame xet gu neex mi ngoog eh, te itam bu ci rax dugg mooy li wax ne wa udda ixlaas alfata bi tasfiya adkaar yi min kulli shawbin bu ko dara rax bu ko dara rax loolu yi mënees na ko misaal mu leer xam naa foofu lay daanale te mooy kii xewlu jëmm ji xam nga wax nañ léegi ne xasiida waalam bi anna dikra quutul qalbi maanaam xasiida mooy dundub xol jëmm ji lekk yi nga xam ne ñooy dundal jëmm ji fi ne bala nga cee xéewlu da ngay raxas sa loxo boo ko deful lekk gi mën na laa bañ lor waaye micro bi taq sa loxo bi boo ko lekkaalee moo lay moo lay lor xasiida noonu la demee daa la laaj akuk sell ak set euh, la laaj lu ko moy la lay lor du jóge ci xasida gi waaye sa ñàkk laab googee ak sa ñàkk sell googe moom ci la lor jey tàbbi ko ku ne xam ne booy xewlu itam daa aji nga wax bismillah sëñ sëñ mag bi dara wax ne kii xewlu te waxul bismillah kookee seytaane lay bokkal mooy yéene ji nag laaykaane moom la taxawale yéene ji mooy nga def ko te yàlla kese tax bul ci fasa leneen rawatina mbirum àdduna defal eh, lii ngay jàng ni na na yàlla rek tax ak wut ci ngërëmul suñu borom ak ci dàkk ci bëggu Sëñ Tuubaa ak ngërëmul Sëñ Tuubaa nga sàkk ko ci waaye itam la nga ca mën a jël rek nga jël ko kenn ku ne la ko lee ndab yi bokkuñu anzala mina samaa'i maa'an fa saala tawdiyatun bi qadriha Cheikh Saliou Mbacké mu baax mi la mën a jàng sama classe gi nga xam ne yow néew doole mënuñu ko jàng yow nga xam la ca doy nga yem ca ndax lekk yi àdduna yi itam boo jëlee lu ëpp gis nga nem lay def mbir mi noonu la deme kenn ku ne itam am na lu gën a dëppoog sa bëgg ak foo gën a jëmee ñii jaalibatu lañ gën a jëmee ñii nooru daare ne ñee jaawartu ñee ñeneen waaye kenn ku ne fa nga gën a jëmee rek nga nga jëm foofu mi ngoog bu ko defee kon yooyu benn mun ci ñàkk ak toog jublu penku toog ci bërëb bu làpp bañ boole wax te eh, itam am ci yéene yi eh, defarug àdduna ak àlaxira Eh, bu ko dee teggin itam ñu bañ ko neenal ndax eh, ni ma ko waxee rek jëmmi teggin Sëriñ tubaa dafa wax ne mooy buntu lépp wa adamul adabi qaidun ila bu'din min allahi alqaribi di ila maanaam ñàkk a dox ay teggin da lay soril borom li nga doon wutit doo ko am dana yàlla musal ci lu mel mooy may yàlla Sëriñ Tuubaa nee diine boo ko xaaju ñetti xaaj ñaari xaaj yi teggin la teggin mooy ruux ak murit ak murit bu ca teggin génnee dara génnatu ci dara dara desatu ci murid guddee lay doon goo xam ni dara ci dund nekkatu ci te teggin suñ tubaab dara daa war a daa war a feeñ ci wax war a feeñ ci jëf war a feeñ ci sa xaal kon loolu nan ko doxe te ñaan yàlla nu àgg ci ak jàmm te yàlla nangu lépp ci dara ji sëriñ bi jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ok jërëjëf ñu koy sant bu baax sëñ Ahmadou xam naa ni xataay jataay bi waaye kon suñ <laughs> koy bàyyi mu gën a wéy sëñ Saalé dégg nga kàddu yu soññe yi nga xamante ni sëñ Ahmadou indi na ko ci xaside yi ak fàttali yi xam naa du ñàkk nga joxe ci yenn kàddu laata may jox sëñ Assane mu ñëw rek ci fàttali yi jëm ci daayira yi ñu ma ko tëjee waaw aouzu billahi min alsheytaani irrajim wa min kulli man lam yuhibbani min alrijali wannisa wa inni u'iiduha bika wa zurriyataha min alsheytaani irrajim rabbi aoudu bika min hamazati alsayatini wa aoudu bika rabbi an yahdurun واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا barkeb xaadimul rasul ñu ngi nuy bokki jullit yi ñuy seetaan yépp bokki taalibe yépp di jiital ci nuyoo bi cheikh mouhamadul muntaka di ñaan sunu borom mi telewul dara mu defal nu ci moom kiimaanuk dund ak dund goo xam ne dana doon kiimaan ci ñëpp yokk ak wéram yokk kàttanam yokk ak manam ba mu ba li mu naalal sintuwaa lépp àgg fu kawe njort te ñu ànd koog moom di bu baax di jaaralewaat nuyoo bi ci sunu kilifa yu baax yi teg toog ci jotaay bi Cheikh Mouhamadul Moustapha ak sëriñ Ahmadou mi ak sunu jëwriñ sëñ sëñ Yuusu Jóob mbooleem mbokki taalibe teew yëpp di am mbégte mu rëy rëy ci teew fii ci ndigalul sunu kilifa sëriñ Xamsatu moom Cheikh Souhaïbou di ko ñaanal bu baax it liggéey bi sëriñ bi teg ci loxoom mu am ci ndam lu kawe sëñ moom xam na li muy def ju ci dara euh, xam naa li sëriñ Ahmadou wax ak kàddu yu ko jiitu jógee ci sëriñ Moustapha ak sëriñ matale na sëkk doy na sëkk itam euh, dafa mel man li ma dégg ak ni ma déggee. sëriñ bi am nañ ci jotaay boo xam ne wax na ca wax na ca ak man waaye la ma ci sama dégg may mooy sëriñ bi ci boppam dañoo bëgg a gësamal sëñ Tuubaa sëñ bi nag njariñi kese la yu yoo xam ne du jékki di wadd faaw duñ faaw ñu gësam ko buñ ko gësamee nag ñëpp mën a jariñu dañoo bëgg a sëñ Tuubaa moo tax mu xiir ñu ci xasida yi ndax jëmmi sëñ bi ci boppam bariwaana saa yu ne léeg daana génne li ne ci moom waaye dafa mel ne ci ginnaaw buñ jàngee xasida la ko daa def nga xam ne daana daana ko bëgg a génne sax tax mu woote ne nañ ma jàngal xasida nañ jàng ñu jàng ba àggal mu doog a wax li bëgg a wax wala mu génne li bëgg a génne naa ci indi tuuti ay ay ay mbir rek am na boo xam ne dañuy jàng xasida ak mu xaddamaat mu xaddamaatul am daa ba ci yebu sumti jumlatan xaasaha nabi min an nafi wa huwa al bahru sul jël bi woon nafi mu ne taxaw leen ñu taxaw mu ne njëriñu yonente bi sallallahu alayhi wa de bu fekkee fukk la benn bi lañ jox yahood yi ak nasaraan yi ñu bew waaye juróom-ñeent yëpp ma ngi ca waggam ya xam ngeen lu ko fa mën a jële ne ko bëgg nañ koo xam mu ne ñuy jànge sama xasida xam ngeen nu muy demee ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne day mel ne déem gu ñor ba buñ ko gësamee mu wadd buñ ko gësamoon mu wadd ponkal ma gën a am la fa jàpp jàpp ca dàtt ba di gësam ba ba ba kenn ci mag ñi ne ko mbàkke ndaw rutu rutu kon hmm. loolu benn la ci ñaareel ba léeg-léegi daana bëgg a leeral ci boppam loo xam ne lu munte ñàkk a leer la ngir dimbale ko nit ñi waaye ba tey day jàngalu ba noppi doog ko génne ñu gàttal ko rek am na yoon woo xam ne dafa woo sëñ Ibra Fall boobu moom nga xam ne moo daa jiite njàng mi ne ko jàngal xasida min Allahil Mahfuz mu jàng ko bàggal sëñ bi ne waa koy dama leen a bëgg a leeral sama liggéey bi ni ma def ba saa borom nangul ma ko nangul ma lépp daane nit saa yu jëfee jëf jëmale ci boromam bala ko boromam a nangu dafay woo ñeenti noon yi seq nit ñu di leen tënk ci nashadu seytaane addina bànneex ak bakkan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 bakkan ñëw xool bu fekkee waa ji bakkanam mënoon na ko ci dara mu jël wàll woowa seytaane ñëw xool bu fekkee mën na ko ci dara mu jël àddina ñëw xool bu fekkee bëgg àddinaa ngi ci xolam wala dara mu jël ehm, kii bànneex ba tey def noonu bu noppee nag suñ borom danaan ko man aw des moom duma ko jël delloo ko sëñ bi nag ne bi ñii ñëwee ñeenti noonu yi ñëwee dañoo xool ba sonn gisuñu ci dara luñ moom mu nangul ma lépp waaw min asasin li masasin taqabbala wa bi siraatihi kafa nis subula lépp la ko yàlla nangu lépp lépp ay faj lépp léegi nag sëñ bëgg ñoo jariñ ci loolu moo tax mu puus ñu jëme jëme ñu fa ma sëñ maa nettili ne am na ci naare gànnaar yi koo xam ne bi mu jógee màkk ñëw sëñ bi nuyoo sëñ bég lool naan ko ana barab yu tedd ya ana sama sang ba ana nangam di wax mu yàgg naar bi it xëy na boobu bëgg naa gësam sëñ bi moom it mu ne ko ah fii dara néew fi lépp nga foofa foofu sëñ bi daal di mel ne ko tàng ne nañ ma wool jàngkat yi ñëw ñëwee mu jàngaloo leen xësid ak wazkurullaha fi ayaamin maadudaat biñ jàngee bés si daxatukal yow ma fil ayaami murtajiyan sawaaba man xajja bayta rasiqillaahi mu ne taxaw nañ ko baamu ñu baamu ko mu ne béy de sama borom may na ma ci ku ko wax aw yoon rek am ci yool boobu bii boo xam ne nangul nañ la ko laa nga xam ne loolu ba tey day dugg ci li ma waxoon sànq ne jàng jëmmi jàng xasida fu ñu ko defee fu ne daana gësamu moom sëñ bi waaw te njëriñu àdduna ak alaxira yëpp yàlla teg na ko ci loxoom sëñ bi nag bëgg ñoo dimbali moo tax mu wooñu ci bisub xasida bii rek waaye nañ nañ nañu nañu nañu fexe ba lii tax bëgg-bëggam boobu mën a am ci nun lay dese mooy ci nun ñun suñu bopp ñoo war a eh, ànd akub yar ànd akub teewlu ànd ak meloka melokaanoo noo xam ne danañ neex a dimbali daam ku sëñ masa wax ne ko lakk xol mooy lan lakk xol mu ne ko ah loolu de wala fi dañ koy wax ci loo xam ne danga ko bëgg a bëgg ba daanaka man nga ne moom da nga bëgg daanaka da nga naan lii daal mooy sama lakk xol mu ne ko waaw ndaxam ñun de bu fekkee am nañ ko mooy gis nit muy waaxoo ko daw jëm ci loo xam ne sawara mën na ko caa fekk tàbbi sawara mën na ko caa fekk ñu bëgg mu dëpp ba noppi mu lànk <laughs> waaw mel ne na nag sëñ bi ñun ñëpp dañoo góorgóorlu jëme ñu ci sëñ tubaa waaye nag ñàkk a dëppook sart yu ñu tegal ak ak ak ak ak ak ji ak yar bi ak ak ak teewlu gi ni nga ko waxee sànq mooy mu mu mu góor ñu jëmee ñu jëmee ñu fa ba noppi ñuy lànk ka naan ko du fii lañu war a jaar ak faa la war a jaar loolu lépp suñ lor lay doonaat kon maa ma ma maa ngi woo ñëpp ci ñu gën a góorgóorlu ci xam li ñu sëñ bi bëggal xam fi ñu jëmee te nangu ko topp ci loolu it li nga wax sànq isrif bi jaaxil muntaxa lil umma moom sëñ Tuubaa da koo liggéeyloo da koo liggéeyloo ci li nga xam ne munta ñàkk ci nun te mooy ñun ñëpp ñu dellu ci sëñ Tuubaa ndax fi ne nii gis nga ñi jiitu xeet yi jiitu yépp ñi ci yàlla alag ñëpp lim leen alage du du du du du weddiku moom képp moom nga xam ne bu dee jëmm jëmmam moom mën naa muñ lépp waaye weddi waayam la munta muñ noonu nga xam ne weddi waayam la munta muñ nag noonu lay bégee itam doyloo cër ba mu la jox te yam ca waaw doyloo cër ba mu la jox te yam ca noonu la koy bëggee noonu lay gën a gaawee ci moom itam dafa am ku mas a jébbalu ci sëñ bi ba noppi ne ko man de mbàkki damaa bëggoon a laaj mu ne ko dana tax a xam bismillah mu ne ko damaa gis ne li yàlla bëgg bari na lool te mënumaa def lépp ma bëgg xam li muy bëgg li muy bari bari lu ci gën a bëgg li muy bañit bari na mënumaa bàyyi lépp ma bëgg xam li muy bañ li muy bari bari lu lu mu ci gën a bañ ma ma xam ko ba man koo maytu sëñ bi ne ko laaj nga lu mat a laaj suñu borom de li muy bëgg li muy bari bari bari lim ci gën a bëgg mooy joxe aw ñam li muy bañit li muy bari bari lim ci gën a bañ mooy fekkum nangul nga gàntu ko mhm. ci loolu yi nag lañu sëñ bi woo wéral wéral cër bi ñu yàlla jox ci sëñ Tuubaa ñu teekoo suñ fukki loxo te bañ koo yemaleeg dara eh, jëmmi xasida it day jëmmal sëñ Tuubaa ci boppam waaw ndax bu ñu waxee ne alxuraan du luñ bind xayru maxlooxin li mu jugee ci yàllaa tax dañ koy boole ci yàlla rek xasida yi noonu lay demee ci sëñ tubaa ñooy sëñ tubaa sëñ bi wax na ko ba tàyyi ginnaaw nag eh, ñooy sëñ tubaa buñ la wooyee ci bisu xasida bu fekkoon da dégg ne sëñ tubaa ngi barab sàngam nga war koo seeti lépp looy bañ boo demee mu gis ko ci yow da koy bàyyi fa nga jóge lépp loo bëgg it boo boo ñëwee mu ràññeeku ci yow faw nga nga nga nga kaalawoo ko doog a dikk waaw bu ko defee nag noonee rek la sëñ bëgg ñëpp waaj waaj waajtaay wóor ñëw loolu suñu yusu wax li war jumaa ji moom weñu naaw sax war nañ ko mën a dégg ngir teewlu ga ñuy teewlu waaw ñëpp maa si jëm ci yàlla ndax xasida yi lépp ak jàmm yàlla wa sal xuruf yi kullaha ibada la wax lépp ak jàmm yàlla la ak jàmm yàlla nag li nga ko waxee sànq ay teggin rek moo cay moo cay tax a jëriñu yàlla nañ ci yàlla boole dimbali ñu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf muy euh, soññee yu yu mënta ñàkk <laughs> xam naa ni waxtu yu xat na waaye sëñ Assane dañ lay may rek ci euh, minute yu néew nga indil ñu rek euh, yenn yóbbal yoo xam ni fi ngeen toll ci wàllu tënk bëgg ngeen mu jëm ci kuréel yi ak daayir yi ak ñi nga xam ne dañuy jógee fu sori te di ay jàngkatu xasida te bis bi rek yëkkati leen yi nga xam ne moom nga leen di dolli. auzu sëñ Lamine ñoo ngi sant bu baax rawatina eh, di sant jataay bii ñu bokk ak suñu sang yu tëdd yi eh, damay dem directement rek ci tënk ndax ni ki la fay tàmbalee yaakaar naa ne dañu gën a dimbali ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy ñëw te bëgg a taxaw liggéey bi kàddu yu tedd yi ñuy wax ak soññe yi yaakaar naa ne buñ ko déggee dana tax lu ñu gënoon ak lu ñu gënoon fabu ak lu ñu gënoon waaj rek ñu ñu gën a waaj ndax xam ne liggéey bu rëy a rëy te bari njëriñ mi ngi ñuy xaar loolu nag jotoon nañ cee def ab ab jéego ci eh, kuréel bi ak ñi nga xam ne moom la ñu sëriñ Amsatu boole loon ngir ñu seq ak daayira yi ak fédération yi ak kuréel yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci goxu Sénégal yëpp nag ci région yi nekk ci Sénégal ak ci département yi ba ci gox goxaan yu sori yi tënk nañu ak ñoom ba euh, kuréel bu ci nekk wala région bu ci nekk bu ma waxee région nag yéemu rek ca capital ba waaye ci gox yu mën a doon kuréel xasida ya fa nekk moo xam ci ña koy yi ak ña koy durus kenn ku ne xam nañu ñoom bu ñëwee ci barab ban barab la ñuy nekk loolu itam yaakaar naa ne li ci ëpp solo mooy li suñu su wax du ay barabu daluwaay waaye barabu liggéey la rek gannaaw liggéey bi eh, kuréel xasida yi ak jànqat yi ak duruskat yi la ñoom bu ñu ñëw dañuy xam ne liggéey boobu moo leen indi kon du barab boo xam ne dañ fay ànd ak mbooloo moo xam ne eh, la tax ñu jóg loolu indiwu leen du barabu jóg di siyaare ji wala di photo wala di waxtaan waaye barabu ñëw nekk ci la nga la ngay lekk la loolu itam li ko tàmbalee ci kër siñ Tuubaa mooy kër gu mag gi am na ay kuréel yoo xam ne waajal na leen fa lu bokkul ak kuréel ya fay yëkkati waajal nañ fa itam ay diwaan ndax niñ ko niñ ko niñ ko saytoo ci ci ci yëkkati bi moo xam rajas wala kuréel noonu lañ ko saytoo itam ci diwaanu xasaa it yi ak xasida yi nga xam moom la ñu war a durus ba ma si joxe benn misaal rek muy misaal boo xam ne dana matale ngir bañ a bu buñ nee kër Sëñ tubaab yi lu bokkul ak kuréel ya fay jàng kuréel la fay jàng doonte dañoo dañu doon ñaar wala ñett danañ sàkk ci wet ga am mbaar moo xam ne tiire nañ ay limu xasida yoo xam ne bëgg na ñoom ñu koy durus foofu lu mel ni Fathul Fattah lu mel ni Baraani lu mel ni Maahin Bachir yooyu lu bokk la kuréel kuréel bu jàng rek boo jogee dangay ngay jubale foofu ngir durus waaye yeneen mbaar yi ne ci biir kër gi eh, dañu jàpp ne diwaanu Nuuru Daare ni moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy durus ci foofu ci kër Sëñ Tuubaa gi nga xam ne wut nañ ci ab lim boo xam ne lu mbooloo mi bari bari danañ ko danañ ko mën a jàng noonu nag lañ ko toppee te ñu ngi ci liggéey bi ci yeneen kër yi mu ko xam këm Sëñ Abdou Lahat buñ ne ci misaal dañ fa dalal waa Louga ak waa ci jànkat yi eh, ak duruskat yi ñoom itam am na leneen lu ñu ciy def loo xam ne bu ñëwee bu fekkee kër ga dafa am daayira boo xam ne lu mel ni màggal wala gàmmu amoon nañ kuréelu xasaayit bu fa daan yëngu ñoom itam dañuy fexe ñoom ñoo xam dañuy ñëw ànd ak ñun liggéey boobu noonu lañ ko toppee ba kër yi nga xam ne yëpp ñoo wër jumaa ji ak pincub daaru minan région ya fay dem eh, eh, kuréel ya fa nekk fi ñu toll nii xam nañ seen bopp di nga dem itam gis ku la wax ne Sëñ Lamin ñun de dakaar lañ bokk dëgg la am waaye nag euh, ca ndaamaatu am na kër gu yaatu goo xam ne ñu ngi fa daan dundal magal ak gàmmu ndax mën nañoo dem foofu ñoom itam ñu ànd ak ñoom tënk loolu ba lañ lañ fay jàngit ñu xam ko ndax euh, bëgg nañu ci xaside yi wuuti gi. loolu itam lu am solo loo xam ne ñu ngi koy seq ak kuréel xasida yi bañ a def rek jeetaay boo xam ne ku ñëw jàng Mawaahibu ku ñëw jàng Mawaahibu danañ ko tëralee noo xam ne kenn ku ne boo jàngee jóg xasida ba ngay jàng da nga wuti ak sa morom ngir lan lim bi gën a yaatu eh, loolu yaakaar naa ne dana tax li nga xam moom lañ ciy séentu ñu gën koo ñu gën koo mën a jekku yaakaar naa daal ngir bañ a guddal eh, loolu mooy li ci ëpp solo waaye li sëñ su wax ak nag soññee bu bu bu bu bu bu mag bi nga xam ne kilifa yi soñ nañ ko war na tax ñun kuréel xasida yi déglu lii ak ñi koy taxaw ñu xam ne liggéey bu rëy moo ñuy xaar. mooy eh, temps boo xam ne nit dana am jotu nekk ci leneen kenn ku ne war nga ko jombale sa bopp eh, njëriñ yi nga xam itam ne moo moo nekk ci xasida yi te ñu wax ko kenn ku ne xam ne def ci sa kémtulaay kattan ngir ngir jëriñoo ko yaakaar naa loolu itam lu war la ci tënk daal ngir bañ a guddal foofu lañ toll bis bu nekk itam ñu ngi jokkoo ak ñoom. ñii ngi ñëw di ñu fekk si ñii ngi sàkku ñu jokkoo ñun ci jokkuwaay yi ba yaakaar naa ne buñ ca àggee incha allah kenn ku ne fa nga war a dem di nga ko xam te liggéey ba itam dañu ko saytu ba bu paree ñu mën a def bilan boo xam ne danañ wax ne jàng nañu xasida sàngam nangami yoon. jàng nañu diwaan sàngam nangam yoon def eh, kuréel yi eh, lii yëpp mooy liste yi nga xam ne moom la xasida yi ci pénc yëpp ak ci ba dëkk bi lii mooy limu xasida yi nga xam ne jàng nañ ko mu doon ab téere boo xam ne dinañ ko mën a nos yooyu daal ci lañ tolloogum ci liggéey Sëñ Lamin hmm. ok jërëjëf Sëñ Asan ñu koy sant bu baax mu tolloog daanaka eh, waxtu wi tënku kon nag ñu xam ne bis baa ngi noonu muy bis boo xam ne niñ ko waxee jàngkati xasida yi ñi koy durus ñi koy yëkkati ak ñiy ñoom la Cheikh mun Mountakha bëgg ñu dikk jëf liggéey boobu ci dëkk bu tedd bi di Touba yaakaar naa ni ñu waxee eh, yëpp leeral nañ ko barab yi nga xam ne waajal nañ ko itam ngir wàllu teraanga yi ak taxawu bi eh, am na ci loo xamante ni comité bi mi ngi ci bis bu nekk itam fuñ ci toll dinañ ci dinañ ci toll xam ngeen ni itam eh, mbooloo fu ñu dajee du ñàkk am lijjant yi war ci ñoom ak yu ñuy ittewoo yoo xamante ni dana laaj taxawaay yu ñi nga xamante ni ñoo yor loolu muy autorité yi ak lu ni mel dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni Cheikh Mouhamadoul Bachir mu yor kàddu sëriñ bi yëkkati na ko ak sàkku yi nga càkkutif nga xam ne def na ko ci seen wàll ngir ñoome la ci seen wàll ñu mën cee taxaw kon muy bis boo xam ne ni ñu ko jubloo ni ko sëriñ bi diglee ni mu ko taamoo ni ko tànnee ak lim ci sàkku lépp ci ak sellal ak pësteef ak liggéeyal ci sëriñ Touba ba li nga xamante ni moom lañ ci bëgg ñu mën ko ci am xam naa sa Youssou bu dee am na kàddu yu mu ciy joxe rek ñu jox ko mu tëj ci ci si minute néew. jërëjëf ñu ngi sant nag bu wér euh, te xam ne lii rek lañ jublu woon ngir jottali ndigalal sëriñ bi su ko ñëpp xamee xam nañ ne taalibe yëpp jënn yitte lañ am mooy xam lan la sëriñ bi bëgg ndax ci li ñu mën a amee li ñuy sàkku euh, doon nañ bëgg it mu leer ñëpp ne dina am ñoo xam ne fa ñu ne ca sori sa dinañ am yéene waaye duñu mën a teew ndax xëñ na euh, ni ñu nosee ñi nga xam ne mooy daayira xasaayit yi ñu nosoo noo xamante ne mën nañu ànd daal di ñëw def ndigal li nañu xam ne fu waay mën a ne te teewlu ci sa xol donte ci sa néeg nga ne jël ak xasida jàng ko ngir màggale ko ndigalal sëriñ bi loolu na la wóor ne njëriñ li ak yool bi noo koy bokk ndax euh, li am solo rek mooy innamal amalu bi niyaat waaw waaw innamaa li kulli imri'in maa nawaa loolu moom bu buñ ko dundalee te fonk ko dina am solo waaye li nga xam ne rek moo ko matul mooy am sa yéene te ak xam lalu ko ba nga xam ne da ngay ñëw fekk fa ñuy jàngee ngay jéggat di def loo xamante ne bokkul ak liñ di li nga xam ne fàttali nañ ko ci euh, aadaa bi zikr nga xam ne moom moo moo ànd ak tudd yàlla ay tegginam ndax barab boo xam ne ay malaayka yaa nga fa ñu baax ñëpp nga fa loolu moom dafa laaj soo fa nekkee nga xam ne li mu laaj ci ay teggin yombut loolu kon ak dal ak i teggin moom mooy tax a jàll ñuy sant ñëpp nag bu baax a baax a baax di wax ne wàllu yi moom moom dafa ànd ak lii ndax fu ñuy tuddee yàlla fexe ba sos ay waañ yu doy ñu ànd ak liggéey bi loolu du mën a ñàkk moo tax fi ñu toll nii euh, li ci sëriñ bi jëf ak li ci euh, sëñ Xamsatu Mbàkke jëf ak li dongo yi di jëf loolu nañ fexe ba Euh, di ko mën a taxawu toppatoo ko ci ay waañ yoo xam ne waañ yu fasantikoo la ngir mu mën a doon loo xam ne dina matale waaye nag lépp rek nañu xam ne euh, li ca baax mooy koo xam ne dafa bëgg sos waañ ci pénc yi nañu xam ne lañuy togg mu yam ci pénc moomu mooy la ca gën a am solo ndax euh, ñay jàng te jege la ñooñu ca gën a yeey waaw li nga xam ne nag moom mooy jëmmi jumaa ji ak li ko wër tamit nañu xam ne ay waañ yu bëri am na yoo xam ne dina fi ñëw loolu kon lu nosu la ba noppi lu waaye am te bëgg ko cee jëf loolu defe naa ñu ngi def ay émission yoo xam ne dina ko leeral na ko jaarale fa nga ko war a jaarale dina si ba ñu mën cee jëriñu diggante yu mel nii xeeti ndox yi euh, xeeti xeeti glace yi xeeti beñe yi nga xam ne da ànd naag kii bi te ànd ak yoo xam ne dina tax ñiy jàng duñu du seen du ànd ak muy taq loolu lépp lu lu ko mat la kon ñu sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon jërëjëf muy euh, kàddu yu am solo di kàddu yu fàttali lépp rek jëm ci ndigal li nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha yëkkati te ku ne xam na ni ndigal jëfe ko mooy tax a jariñu kon nag niñ ci góorlu defe ko ni ko sëriñ bi diglee di ñaan suñu boroom ci barke bi sëriñ Tuubaa mu kàttanal ñu may ñëpp wér ak tal ak fekkee ak pastéef ak pas-pas buy tax ñu defee ko ni ko sëriñ bi diglee sàkku ci ngërëmam te am ko ci di ñaan e, suñu borom yàggal ko fi loolu moom Cheikh mun Mountakha ba mbool mi li mu yéene ci liggéeyu sëriñ Touba bu matale ko te ñu ànd ko moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. قلبي وقال في